mais am na ñoo xam ne tey ji teg nga ci seen bët ci ñoo xam ne tey war nga mun a jàpp waaw comme jën maa ngi maa ngi doon dóor mañik muy xataraay pour dugg ci biir géew jën <laughs> kay rek waaw su duggoon ci géew bi damay tekk ngem mañik bi rek jox ko ko def ko kaay mais mais Jacob Diène Diène Diène champion la de ko ñu wetan teew ko macha allah mais mais pourquoi nga choisir ko non maa bëgg ñu bëre rek waaw jàpp nga ne boo jàppee di Diène di ko kii ah yàlla baax na xam nga man moom nee moo ma ëpp doole ak yooyu noonu. moo waa moo dàq bëre waa ba ma simee koo gis ne. maa jën tamit su taxawee comme nu ma entraîné mille fois laay entraîné pour ëpp ko. tey ku la andi woon avance jën di nga ko jël. lekk nga naan may jël. <laughs> mais mais mais mais mbër yow dama mënul concevoir que comme moom rakam nga jàppante nga nga bëree daanoo ba yëg ci kawam. est-ce que revanche gënu woon mën a jege ka nga ne dangay. jàpp ma dem fee ci jéen. man jàpp ma ko de mais jàppante ngeen. su ma ko jàppee mu jeex. dañoo koronte xam nga jàppoo ak koronte ça fait deux. Mhm. ci kaw la. Mhm. jàppoo nag mooy téye fii ma téye fii. Eh. amul ku ma téye ngembam mu rëcc ma. noo yàlla jégal sax si wax ji. Mhm. lépp lu yegg rek moom la. waaw. mais yàlla baax na daal su ñu neexee ñu tëgg ko ma mañik. lit simple ñu ñëw comme joolaay nu ñuy def. roofoo roofoo jàpp bari ñëw rek jàpp ngemb. ñuy doog a bëri arbitre doog a siffler pour ñu bëri. mais mais mais mais dama bëgg nga wax ma lu leer ba xam tey jii bu ñëw ne la avance Diène Kairé mi ngi nii Jacob say ba xam say mbokk nañ nangu nga jël ko. dama koy lekk déggoon sama mbokk suñ ko jëlu sax man maa koy lekk. Diène Kairé waaw pour. <laughs> mais teewul suñu waree bëri dañuy bëri lii suñu gagne-pain la. waaw. Hmm. waaw lamb ji moom. Hmm. dañoo ñëw pour teral si suñu papa teral si suñu yaay. Hmm. am na yoo xamante ni sax matut a wax. Mhm. nañ nekk ci lu ñu war a nekk rek. ñun mhm. ñëpp ay xale leen. mais mhm. jën moom champion la ku ko xam-xam ne champion la. ku ko xamul sax xam ne champion la foo tudd jën dañ la siggiwaat xool. mais mais mais jën kare moom dina la dégg. jën ah war na maa dégg de. Ah. su ma déggee tamit mu ñëw rek moom jàmbaar la. <laughs> Uh-huh. moom jàmbaar la macha allah. waaw may nga xam ma koy tàllal loxo rek booy mu yóotu ma ma mm. xaw a jëw tuuti <laughs> jere incha allah waaw maa koy jàlloo <laughs> keneen ñu gis ah, làmb bi taaru macha allah nga nga andi ñu stade bi fees dell mooy mu andi stade bi xam nga làmb bi taaru rafet mm-hmm. loolu loolu nan nga ko gisee waaw dañuy sant waa Pikine rek ndax ñoo def mobilisation bi lépp Pikine la mm-hmm. waa Ngor Wakaam Yoof mm-hmm. Bargny Tubaab Jalaaw yéen ba Kayaar fépp débu lébu yi fu ñu nekk ba Tubaab Jalaaw yéen yéen kaw yéen suuf yëpp ñu ngi leen di gërëm lébu yëpp ñu ngi leen di gërëm mhm. di gërëm waa buq tamit mhm. waa buq xam buq mhm. robinet ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax fépp lébu fu mu nekk rek maa ngi lay gërëm sama côté yaay waaw di nuyu waa Medina au passage sama yaay fa la juddoo fa la yaroo fa mu ngi noonu di nuyu sama côté yaay ji famille sama famille maa ngi nuyu ñëpp bàyyi ma kenn waaw alors bu ñu jógee foofu dañuy dem ci Pikine yaakaar naa ni bëree nga daan waaw mu des na mu des ay ay champion yu bari yoo xam ne tey ay combat a ba mhm. coow li bari ba ba mujjeewul am léegi ñu leen daal combat boobu yow ne nan ngeen ko préparé ak nan ngeen bu baax a indil mm. da koy bu mu am coow bi mu am te te te bëreeguñu mm-hmm. yaakaar nga ne am nga ci yow benn euh, xel ñàkk ni combat bi dina am. combat bi dina am kay incha allahu rabi. Mm-hmm. ak coow li ni mu bëree nii. ñoom ñaar mënuñu sax taxaw def face à mais ñoom ñaar ñëpp lekk neen avance. suñu mm-hmm. mënul def face à sax maa ma ñu gën ngi est ce que est man signature yëpp gis nañ ma. Mm-hmm. xam nga gis ñu gisuñu ma mm-hmm. mu ngi noonu nag mais teew ba ñu waree bëri bëri na. Mm-hmm. ñu waree bëri le 25 décembre incha allah rabi dinañ bëri ama daan ko jël bu gaaw incha allah. d' accord ne combat bi euh, jàpp nañ ko 25 cinq incha allah gis ama tamit bi mu daree bëree ba léegi Modou Lo lay laaj. Modou def seen combat taxaw. waaw Modou Lo war euh, yor roi te ama nee na lépp lu mun a am tey jii nii jël roi des arènes bi moo ko gënal. lu leer est ce nga ni combat boobu dina yomb. ku wax combat boobu day yomb moom day nax boppam Modou Lo Ama rek loolu rek. imagine toi yéeg lépp ak ngay wane. <laughs> imagine Modou Lo Ama rek du yomb. <laughs> waaw du bu taxawee Modou Lo taxaw Ama koo xam xam ne bu abine par day dox sa kaw ak noo munti toll. te Modou du arrière. su arrière wàcc de. kon ko ah. su arrière laal suuf. bu kar arrière wàcc du. Modou Modou waaw est-ce que dina ko fa taxaw. Hmm. xaar sax Ama yébi dafa diis de.